masque yi tissu en coton la dañuy wut popeline bi nga xam ne coton bu diis bi peut être benn coton boo xam ne dafay neex si bakkan ñu jiitalee duplier ko def ko ci biir pour que ki ko sol mu bañ ko sonal aussi mën na ko takk suba ba ngoon mais aussi bi ñu waxee président am na yoo xam ne tamit AGT la mais dafa wax ni moom nit boo koy may da koy may loo xam ne comme ki ngay may dooleem jotagul ginnaaw da nga koy may loo xam ne à chaque fois dina ko mën a utiliser bu paree mu fóotaat ko bu ci amee ñaar mu fóotaat ko mu solaat ko moo tax mu jël tissu boo xam ne tissu qualité la ñu defaree ko ko. mais bi mu amee initiative bi man li tax mu marke ma mooy lii yombul mënoon na xool rek benn entreprise bu mag mu def ko Thiès am na fi Dakar mu nekk bëri na fa mais dafa xool ñun tailleur yi nga xam ne jotuñu suñu loxo jotul suñu ginnaaw mu wooñu ma ne jour bi ñu ñëwee mu jox ñu avance bi. tey bépp téer bu nekk zone nord laal ci masque yi yëg nga ni yow sa koor mu ngi doo a commencé parce que tey ba nga demee def nga si ndogu def nga ci leneen leneen mhm. def ay dépenses yu bëri loolu nag geste bu noobu la parce que nag bëri na ñoo xam ne ñu ngi fi te defu ko tey bu fekkoon ñu bëri ñu mel ni Habib am na par exemple tey xam nga tey boo amoon benn some boo xam ne dana ko fay si masque mën a jël sa bénéfice yow defaraat ci yeneen i masque léegi nag bu ko defee yow don yi dafay yomb ku ñëw ndax comme dañ benn Cees waa bu ne war naa mën a am masque te téer rek ñoom ñoo ci mën a jàpp tey bu du woon lii dina jafe parce que tailleur yi tamit ñoom nañ jàpp ni ñoom métier mi ñu yor buñ ci xool xaalis ba mu ëpp mais métier mi sutura la ñoom dañuy suturaal ay nit ndax kay tey fii bu dul woon tailleur ñu ñu fi nekk ñëpp suñu suñu suñu taxawaay bi du rafet kon tailleur ni mu suturaalee ni moom bu gëmee loolu xam ne mu ngi jaamu yàlla noonu la ko yàlla di suturaalee kon na tailleur bu nekk fexe ba jël ci dooleem donte sans masque la nga defar ko may ko population bi su boobaa yiw bu Habib am yow mën ngaa am bu toll noonu quoi mm-hmm. ngay def bañ cee def rek ci weeru koor comme ni nga ko waxee nga profité ci weer wi mooy weeru màgg wi nga xam ne weeru jaamu yàlla la fexe ba Thiès waa bu nekk ah am am benn masque. suñu mbokk Habib ñaa nga xam ne nag daal rek euh, ñu ngi woon fii ci penc mi euh, mu fi doon def conférence mag. Mm-hmm. boole ko woo kuréelu jigéen ñi ci diwaanu Thiès Nord gépp doon yëkkati ay xéwal leen jox ci weeru koor gi. Euh, mu mel ni loolu def na ko ren ci beneen façon. Mm-hmm. mooy jokkoog na ñoom seen dëkkuwaay ndax comme ni nga xam ne dañuy tere lépp loo xam ne dafay dajal ay mbooloo. kon nag mu jublu ci beneen deuxième phase muy phase bu solo. moy ginaaw bi adunaam yeb deppo ni feebar bi da fay tassaro ci jaww ji di tassaro ci ci noy ci digeunte euh benen doom adama mu xalaat li muy lu rafet muy fexé ba ar doom bok ci ñi ar doom adama yi fexé ba gox bi mu dekk mooy famille bu ci nek am lu mat 15 masques mu am inspiration boobu taxaw ci ñun en tant que ay nitu diine en tant que doomu daara en tant que nitu l'islam en tant que ab taalibe suñ ci woy dañ ci sawar ngir xamal ko ni li nga def yiw la te yantabi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ak daalu anal xëyri ka faalihi ku joxoñ lu baax yàq ko jëf yéen a kon ñun ñu fi teew ñëpp am nañ yiw gi ndax yéene nañ ko li mu def te moom li mu ci def li mooy aar doomu aadama yi ndax ëpp na ci këram ëpp na na ci njabootam ëpp na ci famem kon xalaat na ñeneen ay junni junni doomu aadama yoo xam ne mën na ci jëriñoo ci masque tamit ñëpp ñoo ko mën a jënd parce na fu mu xej am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba macha allah na yàlla xam doy na léegi su loolu man laa décidé man ne la man de bëgg naa toog lu mot presque euh, maanaam juróom benn junni masque bëgg naa ko selon ni président vraiment li nga bëgg dañ ci and mané len man aussi depuis problème amé ba légui gis naa ne yéen da ngeen toog wu len man aussi itamit il faut mu ñu indi sama ndimbal loolu yéen a bëriwul mais sante yalla parce que yàlla moom fu mu nekk rek ku ko nekk mu nekkal la si loolu bu amé bu ma waxtane ñu ba paré ñom seen bop bu ñu waxtane bu jibo ci cadeau parce que ñun aussi dogu gañ ñom ñoom seen bopp dañu sacrifié wu ñetti fan la leen jox coupon yi ñetti fan vraiment indi ma lu mot ay jooni ñetti jooni masque jox nañ mako amna am na yeneen saa yu dess parce que du ñoom rek la doon tester kon aussi yeneen zone yu xam ne du foofu salaay bon li may faral yeneen zone yu xam ne sax bokkul si zone nord jox naa leen ay kii ñoom aussi maa di remercier bu baax a baax da fekk aussi ñoom tamit ñu am ay commandes yu xam ne dañ ko livré à Dakar ni ma yaa ñu jiitu yow la ñuy defal ba pare soo ko jënd waa dakaar donc si loolu tamit vraiment sant naa leen bu baax dina gërëm si taxawaay bi Euh, ñit yi nañu respecté li nga xam ne maanaam moom la président wax ñi nga xam ne maanaam moom la sa ministre am wax affaire ndongo daay dafa kéemaane lool euh, jël nañu mesure ba yàlla def na sax même boo xoolee kenn jullitu si jumaa yi parce que tamit mesure bu am solo la <laughs> parce que yaakaar naa ni problème de communication la ñuy waxtaan ak sëriñ ñi danger bi xam ne maanaam am na fi parce que lii bu ñu si dëgëree bopp day gën a yokku